Aïssatou Gueye Ba. Bienvenue à vous dans ce 0 heure, une information que nous démarrons avec la session SAMS des académies de Pikine et Guédiawaye qui décrète un débrayage à 9h à partir de ce lundi et grève totale le mardi décembre Les camarades de Sauro Sen réclament le paiement des indemnités du BFM et du BAC. Écoutons Amat Walindiaï, secrétaire général, session d'académie de Pikin Gediwai au téléphone avec euh, Biramandiaï. On est en mouvement euh, demain pour euh, réclamer le paiement intégral des indemnités du BFM dans toute la région de Dakar. Vous la, le SAEMS e est composé de Donc, la section de l'Académie de Dakar, et celle de celle de Rufisque. Bon, vous savez, nous, au niveau du SAEMS, notre objectif n'a pas été d'aller en grève. C'est pourquoi, depuis le novembre, on était en contact avec les, les représentants locaux, à savoir les IA des trois sections d'académie. Bon, on négociait, on discutait avec eux pour qu'ils règlent cette situation dans l'amiable et que les gens ne partent pas en grève, parce qu'on a assez perdu du temps. Mais quand on sait que c'est au niveau du ministère de, de, euh, du ministère de l'enseignement supérieur, d'autres vous disent que c'est au niveau de l'office du bac, etc. Nous, on a jugé nécessaire d'aller en grève, en débrayage demain et en, en grève totale le mardi. Maintenant, si rien n'est fait, nous allons encore taper jusqu'à avoir gain de Parce qu'on a constaté que l'État, ce qui l'intéresse, c'est toujours que les enseignants partent en grève pour que la population se renverse, sur nous, pour dire que les enseignants Les 62 travailleurs licenciés de la société GCO accompagnés des populations battues de Macadam à Diogo, ils dénoncent le licenciement abusif et demandent l'arbitrage des autorités. Babacar Les 62 licenciés de la GCO sont massivement sortis tout de rouge vêtus à Diogo, accompagnés des populations pour vigoureusement manifester contre ces licenciements qu'ils jugent abusifs. La GCO Grande Côte Operation, une entreprise qui maintient son refus de les réintégrer malgré la décision de l'inspection du travail qui leur a donné raison. Des licenciés de la GCO qui, encadrés par les éléments de la gendarmerie, ont battu le macadam sur près de 2 km. Gourmak Faye, coordonnateur du collectif des licenciés de la GCO. une marche de protestation contre la décision illégale, injuste de GCO a prise pour licencier arbitrairement des travailleurs. Et par la suite, la même décision a poussé la CIS à licencier également 33 travailleurs. Donc aujourd'hui, nous sommes ici pour défendre une cause

été aussi vigoureusement décrié Gormak Faye. Depuis ce licenciement, la situation des victimes est dramatique et chaotique. Ces travailleurs sont enterrés vivants parce que pour un fait de famille, pour qui, même en percevant ses salaires, ne, ne parvenait pas à assurer la dépense quotidienne. Si toutefois aujourd'hui, on lui prive de son salaire pendant 5 mois, en cette période de conjoncture, en cette période de crise sanitaire, une entreprise responsable, une entreprise soucieuse de ses travailleurs n'aurait pas eu cette pensée radicale, agresseuse. On dépendait de nos champs, on parvenait à récolter 5 5 millions ou 10 millions pendant une saison. Je suis à pris ces terres-là, ensuite à licencier nos enfants. Des travailleurs licenciés qui en ont profité pour demander l'arbitrage du président Macky Sall. Tivawan, Babacarso depuis Diogo pour ce DFM. Babacar Sow, les travailleurs de l'ISRA, Institut sénégalais de recherche agricole, dénoncent également les retards des salaires et les difficultés techniques et scientifiques. Ils ont adressé une lettre ouverte au président Macky et n'excluent pas non plus de tenir des sit-ins même d'aller en grève si leurs revendications ne sont pas prises en charge. Écoutons Racine Kane, secrétaire général adjoint Sintra au micro de Hamadou Moustapha Dia. Beaucoup de qui est une bonne partie, euh, qui gruge une bonne partie euh, de ce, de ce, de ce budget-là. Alors, aujourd'hui, nous sommes déjà le, le, le, le 13, dimanche 13, ce lundi 14, mais l'ISA n'a pas encore payé les salaires. Et cela commence à, à, à, durer euh, depuis maintenant plusieurs mois. Les salaires sont payés toujours très tardivement, au plus le, 8 du mois. Et euh, c'est une situation qui devient de plus en plus difficile. Euh, qui est combiné déjà aux difficultés au plan scientifique parce que l'État, pour le moment, nous avons sorti cette, euh, euh, lettre donc adressée au chef de l'État pour un peu plus le sensibiliser puisque nous avons toujours été félicités et encouragés par le chef de l'État. Nous, nous, nous, imaginons qu'il que ça fait partie de ses objectifs de renforcer euh, un institut comme l'ISRA au plan, au plan financier, au plan technique, etc. Donc nous avons posé ce premier jalon de, de lui adresser encore une lettre, parce que nous l'avions fait il y a de cela deux ans, mais ça, c est, c est, euh, ça a été sans suite. Aujourd'hui, nous avons prévu de faire dans la responsabilité d'abord de nous adresser au chef de l'État pour lui adresser cette lettre-là, en espérant que cela puisse euh, aboutir à une solution. Si maintenant nous restons encore des jours ou en tout cas en tout cas des heures sans pouvoir trouver une solution à ce à par tous ces aspects techniques et scientifiques euh, qui font défaut à l'ISRA. Nous avons bien sûr, parce que nous avons une intersyndicale de trois syndicats, des chercheurs et des travailleurs, nous avons euh, bien sûr toute, un, toute une euh, panoplie d'actions à mener qui iront jusqu'à peut-être euh, organiser une marche ou organiser, euh, une, organiser une grève parce que nous avions euh, l'année dernière ou y a deux ans mhm. euh, euh, donc une manifestation, mhm. un sit Nous, n'excluons pas d'user de, de, tous les moyens pour nous faire entendre encore plus pour l'agriculture du Sénégal, mais également au plan humain, de pouvoir permettre aux travailleurs d'être à l'aise, d'être payés à temps et de pouvoir faire son travail dans les meilleures conditions. Le Premier ministre du Royaume africain des Swatini, Ambrose Dlamini, est décédé dimanche après-midi dans un hôpital sud de ce pays. Le Premier ministre de la dernière monarchie était âgé de 52 ans. Il avait été hospitalisé en Afrique du Sud pour y être soigné depuis décembre, deux semaines après avoir été diagnostiqué positif à la COVID-19. ay Aïssatou Gueye Ba ah, bismillah ci xibaar yi ñuy teewlu ko nag ak section SAEMS bu académie bu Pikine ak Guédiawaye ah, daal di naan nag décrété ab débrayage ni ëllëg bu 9h jotee ak it itam ab grève mardi maanaam gannaaw suba mbokku sawru seen yi nag ñu ngi wéy di laajte seen indemnité BFM ak BAC Ahmed Waly Ndiaye secrétaire général section académie bu Pikine ak Guédiawaye ñu teewlu ko ci micro Birama Ndiaye. suba dañuy dañuy dem débrayage à partir de 9 heures ak euh, mardi grève waaw li ko waral mooy la réclamation des le paiement des indemnités du BAC et du BFM parce que dañoo seetlu ne gouvernement bi loolu moo ko intéressé que les enseignants enseignants yi dem grève pour ñoom ñu doog a parce que bi weer bi deewee ba léegi ñoo ngi waxtaan ak ñoom muy da académie wu Pikine muy académie de Guédiawaye muy académie de de Rufisque ñu ngi waxtaan ak ñoom mais dafa mel ni ñoom dañuy dañuy sànniwante bal bi daal tantôt ñu nañu c'est l'enseignement supérieur ou l'office du bac tantôt ñu ne c'est au niveau des académies donc xamuñu dëgg bi fu mu féetee puisque xamuñu dëgg bi mu féetee na te ñoom mënuñoo wax li xew ñun aussi on a jugé nécessaire vraiment d'aller en grève parce que li ñu waraloon ak ñoom def nañ ko maanaam bañ a dem grève toog waxtaan ak ñoom ñaan leen ne leen liñ kat la ñu bëgg mooy ne serait-ce que sax ngeen fay copie bàyyi bàyyi déplacement yi wala ngeen tàmbali nit ñi xam ne tàmbali ngeen donc euh, moom moo ñu gënal mais comme ñoom bëgguñu loolu donc nañ dem ci ñoom fekk si leen ci ñoom liñ bëgg rek voilà loolu la woon waa ñoo bu fekkente ne defuñu dara ñu dem ba jeex rek ñu dem ba jeex parce que xam nga nit aussi ci waxtaan ci waxtaan lay mujjee mais ñun dañoo njëkkee waxtaan bi de booloo dajaloo toog bi waxtaan ak ñoom muy ñetti IA yëpp ñoom bu ñu déggee élément bi dinañ xam ne ñun les trois euh, secrétaires généraux de la des sections de SAEMS de Dakar toog nañ waxtaan ak ñoom comme ñun nañ njëkkee nañ waxtaan ñun soxlaatuñu waxtaan li ñu soxla mooy li ñu yoral nit ñi nañ leen ko fay jàmm ne ñooy ñu dem dellu ci njàngale bi parce que ñun looloo mu soxal. lu toll ci juróom benn fukk ak ñaar liggéeykat yu ñu daal di dakk ca société GCO ñoo doon manifester tey eh, takk ay morceau yu xonk li ñuy wax rek mooy eh, dàkk googe jaarul ci yoon te teguwul fenn ñi woon ak yi ñu daal di artu ci mbir moomee Babacar Sow te woon na eh, ci seen doxu ñaxtu boobee. ñu lu toll ci juróom benn fukki liggéeykat ak ñaar yoo xam ni yii GCO daf leen a dàq ci biti ñoom ñoo ñee mer ba futt sol sekkiti xonk cooy yi ànd ak askan wi dox doxub ñax ñaxtu ca jogo ngir wane seenug métit ci li nga xamee ni dañuy jàpp ni GCO tegu ko fenn GCO bérébu liggéeykaay boo xam ni bii lànk ba tëdd ci naaj bi ni du leen jëlaat donte sax inspection du travail daal dina leen daan ni leen di ngeen def tegu leen ko ci yoon liggéeykatu GCO yooyu nga xam ni dañ leen a dàq waaye takk der yi daal di leen gunge ñu dox doxub ñaxtu lu toll ci ñaari kilomètre Gor Mak Faye moo yore seenub kàddu li ñu fi dajee tey mooy dañuy bañ nooteel bañ buumu njaam bi ñu tooñee jarga ji sàtt réew mi ku wax ñu dàq la fi ñoo fii buur di fi bumi

borom njaboot yi ci bëri mënatuñoo dundal seeni njaboot lu toll ci juróom weer a ngi nii ak feebaru mbas mi ñu nemmeeku ci réew mi ñu yokk ci nii li leen gën a métti moo di GCO dafa teg loxo seeni suuf gor fay bi ñu dàqee ba léegi juróomi weer a ngi nii ci borom kër bi nga xam ba muy liggéey sax loxoom jotuloon ginnaawam nga dàq ko xañ ko salaire tas njabootam tas këram fii am na si ñoom mi sëy tas am na fi ñi nga xam ne fi ñu leen seen courant nga xam ne fayatuñ seen ndox kon mu nekk situation boo xam ne en ay liggéeykat yoo xam dañoon dafa joxe dogal ay nasaan teggi ko war na cee jóg wax di liggéeykat yoo xam ni daal dañu yëkkati wala ay kàddu di ñaan njiitu réew mi président Macky Sall mu àdd ci lu ni mel tii vawan Babacar Sorin ci dokk ak fii ci Jogo pour Sud FM Babacar Sow yeneen kat ISRA di institut Sénégal euh, sénégalais de recherche agricole daal dineen mer ñoom itam li ñuy nakaru nag mooy yéexital mi am ci jot seenub salaire ak jafe-jafe yi ñuy jànkonteel euh, seenub liggéey dañ ci ànd ak Racine Kane mooy secretaire général SINDRA ñu ci micro Amadou Moustapha Dia suñu budget dañu gis ne sax non seulement euh, yokkuñu ko waaye dañu ci comp yenn saa yi mille deux nañ ci lu ëpp milliards ak ñeenti téeméeri millions dañ koy delloowaat ci budget deux mille dix huit ngir mun ñoo jàppale ñu motale yenn yi boobu defuñu ko woon fi mu nekk nii rek amaat na lu ëpp deux cent millions yoo xamante tamit comp ci nañ ko ci wàllu fay salaire yi ci wàllu ci wàllu fajum fajum fajum yi ci wàllu euh, gëstu bi ni nga xam ne dëgg-dëgg noonu lañ ci war a defee ay jumtuwaay noonu la ñu war amee jumtuwaay ak ñu ci war a ay koppar ak ay mel noonu donc fi mu nekk nii tey ji ci altine bi wala mooy mooy nekk fukki fan ak ñeent ci weer bi te te waa ISRA fayeeguñu leen seen salaire te waxaguñu leen dara loo xamante ne lu leer la te loolu tàmbali na di bëri di am ndax ay weer yu weer a ngi nii du ñu fayeeku lu dul juróom-ñetti fan ci weer wi wala juróom-ñeent wala fukki fan ci weer wi. Euh, yooyu yëpp ñuy ñuy jànkoonteeg ay jafe-jafe dañu nekk nag ay ñoo xamante ne nii dañu dañu dañu jàpp ne réew du ay coow ak i ak i ak i ak i ŋàññ ak i sànni xeer rek moo koy moo koy doxal. jàpp nañ ne ñun suñu taxawaay en tant que gëstukat en tant que ay boroomi boroomi boroomi xel boroomi xam-xam mooy waxtaan ak kilifa yi ba noppi loolu moo tax nag ñu njëkk a bind bataaxal jëmbal ko njiitum réew mi ngir fàttali ko suñu taxawaay fàttali li liñ ñuy sax te bëgg ñu matale ko te mu te ñun mu néew liñ ñu ciy dimbale ci wàllu ci wàllu jumtukaay ak wàllu koppar fàttali ko ne ba tey ji ñuy wax ak yéen waa ISRA weer ni ngi nii ak yu ni mel ak mu ni mel ngir mu gën a mun a jàppale te ISRA leen delloo leen boobu mooy pàcc bu njëkk bi jàpp ne nag xëy na dina tax mu gëst gestu war ñu indil ñu indil ñu ay solution gannaaw tànnalaat nañu njiit bu bees ñu jàpp ne njiit bu bees boobu dinañ ko dooleel ba mu gën a mën a def liggéeyam mm-hmm. waaye bu loolu nag weesoo bu ñu defee loolu mm-hmm. nekk personne nit yu responsable te amul benn solution tamit indi ñu ci benn saafara am nañu yeneen yoon yoo xam ne nag xëy na boobaa danañ ko def ndax du ñàkk ñu mun a woo tas ko xibaar yi gën leen a wax suñu taxawaay ak ñu wàllu gëstu bi liñ ci war a def yëpp ñu téye suñu loxo te boobaa nag wax dëgg yàlla ñaanu yàlla àgg fa waaye bu boobaa dinañ gis ne mbéy mi dina sooxe lu bëree bëri. ok ci bëri lu nguur gi yaakaar ci mbéy mi. Mhm. gëstu bi moo ko mën a taxawal. mangook ñu jeexale xibaar yi ki nga xamante ne mooy di premier ministre bu royaume africain bu Eswatini daal di nay faatu ci dimanche bi fële ca hôpital sud africain bu ñu sukkandikoo ci gouvernement dëkk boobee Ambrose Dlamini amoon nag lu toll ci euh, juróom fukki ak ñaar foofe ci hôpital bu Afrique du Sud lañ ko daal di hospitalisé woon euh, ca ndorteelu weeru décembre bi loole nag ñaari semaine euh, gannaaw ba mu wala sax ba ñu gisee woon ñaamee naa feebar bi di coronavirus. plus. mbokk yi fii la ñu yem ak yéen ci xibaar yi di leen jaajëfal bu baax ci seen onde beeg seen rajo di fii tataane xibaar yi di gërëm bu baax kii di Papa Abdoulaye Dieye moom mii fare woon ci machine bi Aïssatou Gueye ba ne woon ci kàddu gi ñu fanaan jàmm.